ci taxawaayam ci mbir mu rëy mii ba mu tàmbalee ba léegi mi ngi ko ànd ak nun ñu ngi leen di seereel sunu kent ak moom ci liggéey bi kon jërëjëf président taxawaay bi gis nañ ko ci wàll yépp ñu ngi koy yàlla muy faye yàlla na ko fay ci barkeb Sëriñ Tuubaa gannaaw loolu ñu ngi sant bokk yi ñi nga xam ne dañ ñuy boole di tudd di tudd sëriñ bi ñu ngi leen di sant bu baax ñëpp ñoom ñëpp ñëpp bokk nañ ko ànd ci biir ak ci biti suñ lépp nag ñu jiital ci liggéey bi kon noo ngi leen di sant bu baax la di sant nag mboolem taalib yi kenn desul ki yaakaar ne moo ci gën a feg ak kañ foog ne moo ci gën a kawe ci mboolem bokki taalib yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax gis nañ yene ji nga xam am ngeen ko ak pastéef bu wër bi nga xam am ngeen ko ak ité ju reuy ji nga xam am ngeen ko ànd gi ngeen ko and ak nun tambali liggéey bi bam mu agsi fii tey loolu amel nañ len ci cant gu reuy di ko borom liggéey bi rek jëmmi fi ñu toll nii tey tolluwaay la boo xam ne dafa aajowoo ñu gën cee yeesal sunu jaayanteeg sëriñ bi di ca fedd li sunuy laxasaay fas yéene gën a taxawu liggéey bii ku ne xam na liggéey bi ni mu meloon liggéey bu rëy la caaxaan eggalewu ko fii mu egg rawatina nag ci li nga xam ne moom lañ jëm ndax li ko eggale fii ab tàmbali rekk la la koy koy itte ja koy saytu. mu bañ dellu gannaaw. mu loo jooju itte mooy li ci gën a am solo. kon nanu ko itte woon rek. tàmmee tàmbalee ni. àndeeku ni. kon yaa yoon waa nan ci gën a def yitte bu baax a baax. ndax li ci war lepp ndax dara bañ ci soxé dara bañ ci taxaw niko borom bëgg woon rek jërë ngeen jëf nu ngi gëna santat président ci taxawayam ci niñ ko waxé won rek biñ tabulé liggéey bi banim exé fi egsee mom noko nu mu gën a diise ak nu mu gën a sellee ak nu mu gën a rafete noonu rek lañ ko ànd ak moom noonu la ko defee ak nun ñu ko nu ngi koy dollee sant di ko gërëm bu baax di sant nag mboolem bokki taalib yi yëpp alhamdulilah rabbil alamin kon léegi nag nee ñu jox kàddu gi sëriñ Bass mu eggale mu eggaleel ko waaw. jërëjëf kon dañuy jox kàddu gi Cheikh Mamadou Bassir.